jërë ngeen jëf di rafetlu ànd bi ak Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci seeni xibaar tey ci alxames bi rek ñu koy dooree coronavirus ci 2500 tests yi ñu jot a réalisé 250 cas ñoo ci jot a positif ci 250 cas yooyu am na ci 76 cas contact ak 10 décès. ñu àdd rek wax ci lu ñeewal vaccin contre coronavirus démb nag ci conseil des ministre kii di président Macky Sall daal dina jox ndogal Abdoulaye Diouf Sarr di ministre de la santé et de l'action sociale ngir rek mu jël ay matuwaayam rek ngir sensibiliser ñi nga xam ne ñoo di askan wi ci euh, vaccin boobu ngir rek bu yegg soo bu yeggsee fii ci Sénégal lépp mën a jaar yoon bépp ndogal rek buñ ci jël nag dinañ ci ànd ak ñi nga xam ne rek moo di armée sénégalaise ba tey rek ci conseil des ministres boobu amoon démb rek kii di président Macky Sall daal dina àddu rek ci ñaareelu pàccu couverture maladie universelle di daal di xamle rek ne ñii di euh, waa Japon daal dina apporte daal dinañu apporter benn somme bu toll ci ñeent fukki milliards rek ngir boobu euh, boobule couverture di maladie universelle ci noonu nag muy demande ñi nga xam ne ñoo ngënk rek boobu mbir rek ngir ñu gën a organiser wu rek ba fay yi nga xam ne amoon na ci 2014 bu mu am ci bii ñu war a lancer ci 2021 bi tey ci arxemes bi am ndaje waroon am ci diggante gouvernement bi ak taskatu xibaar yi boobu leen ndaje naga daal dinañ ko dàq li waral lii rek mooy feebaru coronavirus waaye kii di le ministre Omar Gueye di porte parole gouvernement bi daal dina génn xamle na rek bi leen ndaje rek dinañ ko daal organiser waat rek ci ay fan yu néew. kii nag moom da doon wër di naxee kii di Mamadou lamina Seck ginnaaw rek ba mu sàccee lii di carte professionnelle u policier jubliwu ci dara rek lu dul di def ay ñaawteefam ba jot na cee sax nag ndax lu tolloo ci fukki nit ak juróom ba fi ñuy waxee ak yéen actuellement kii di Mamadou Lamine Seck mu nga fële ci commissariat bu Rebeuss ngir rek leeral bi lay mbir ñu ñëw ak yéen nag ca tiis ba am fële ca Ngajaga ginnaaw nag kii di Saakura Gaye rek ñàkkee bakkanam ca teen boobu nga xam ne rek dañ ko gasoon rek ngir fay gaz boobu doon tàkk foofu Saakura bi mu yee génn àdduna dafa bàyyi ñaari tuut tànk yoo xam ne rek ay seex lañ ci jour bi mu génn àdduna sax la waroon dem rek ngir nemmeeku leen waaye rek loolu mujj la ant ñu koy ñaanal rek yàlla yërëm ko te xaaree ko àjjana ñu dem ak yéen nag fële ca Kër Massar ab benn sàcc rek moo du moo daal di dugg ci euh, benn kër rek ba mu duggee ca kër ga nag dafa fekk benn xale bu jigéen buy wuyoo ci Aysa Mbenn Juuf Aysa nag dafa daal di xàmmee sàcc boobu rek ngir rek mu bañ nag mu yoole ko mu daal di tàll néeg ba mu nekkoon boole kaag xale bu jigéen ba ba fi ñuy waxe ak yéen nii nag kii di Aysa Mbenn Juuf mu ngi ci diggante dund ak dee ndaxte lakk-lakk ya métti na torop kii di sàcc bi nag mu ngi ci loxo yoon ba tey rek ñuy desande ak yéen ci conseil de ministre bi amoon amoon démb kii di président Macky Sall nag daal dina delloo njukkal rek kii di Amath Dansokho gannaaw nag ba mu ko tuddee hôpital boobu nekk Kédougou kii di Amath soxo nag ci fàttali rek mu ngi génnoon àdduna le mille août 2019. ñoo ngi yéen rekk ci xibaaru bitim réew di ko doore ak réew mi di France ci coow la vaccin coronavirus rek daal dina def foofu ay dégâts ndaxte nag juróomi nit rek ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan ginnaaw bi ñu defee boobu les vaccins waaye li ni mel nag moom lañu ñu nemmeekuwaat fële ca Norvège ndaxte foofu tamit fukki nit ak ñett rek ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan waaye ñooñu nag dañoo nekk ñoo xam ne ñu ngi nekk ci troisième âge bi maanaam ay mag lañu woon ñuy vacciné wu. jërë ngeen jëfali moo fi jotoon ruuse ci xibaar ñu leen di jox dig daje rek suba incha allah.